thank you mbokk yi ñu ngi leen di euh, nuyu di leen dalal jàmm euh, ci plateau euh, mi journée tey nag ñu ngi am mbégte di dalal syndicaliste bu mag nekkoon nekk aussi homme politique syndicat ak politique peut-être benn part rek ngay def dugg ci beneen bi muy Ibra Diouf Niokhobaye Ibra Diouf Niokhobaye nag nekkoon na fi aussi membre comité directeur bu parti démocratique sénégalais Ibra Diouf Niokhobaye ñu ngi leen nuyu. ñu lay fay Pierre ci mhm. invitation bi. voilà jërëjëf di la remercier bu baax yow tamit. si li nga wuy si sunu invitation voilà euh, syndicaliste nga yaa jiite syndicat bi di euh, alliance démocratique des enseignants du euh, Sénégal bokkoon ci commité directeur bu PDS nekkoon député ci parlement bu CEDEAO ak bu Union africaine nekkoon is aussi plénipotentiaire u candidat maître Madické Niang nekkoon candidat ci élection 2019 yi alors syndicaliste syndicaliste nag bu ñu koy wax mooy kuy défendre ak ak yelleefu liggéeykat waaye jamono ji daal dañoo jàpp ni liggéeykatu Sénégal yi dañoo sonn lool est-ce que diagnostic boobu ngay def yow tamit ci situation liggéeykatu Sénégal yi. waaw jërëjëf euh, Pierre Edouard mm-hmm. euh, ginnaaw bañ ma sant yàlla yoon ba Serigne Touba. Mm-hmm. di ñaanalaat euh, borom kër gi. Mm-hmm. ki bàyyi ko. Sidi. ak sunu xarit bi Abdourahmane yàlla na leen yàlla xare àjjana amiin di la remercier également sa invitation di la xamal loolu nga wax travailleurs yi quel que soit secteur boo dem du jàngalekat yi rek ñu ngay ñaxtu ndax yëf yi dafa metti na metti waay goo xamante ne gi surtout nag boo xoolee les secteurs informels xoolal fii mu ne nii li xew ci compagnie sucrière xam nga dañu wax ne eh, dafa sucre si dafa bari ci dëkk bi mais ñoom dañu ànd ak seen direction xam ne loolu bu wéyee fu ñu jëm ñoom dañoo tiit fi ñu ne ne dañu leen di ndax xam nga loolu baaxul sax ci psychologiquement day impacter négativement nit kiy liggéey xool le transport actuel. est-ce que monopole boobu aussi dafa war di continuer. non xam nga mm-hmm. euh, monopole bi il faut il faut réorganiser le monopole. Mm-hmm. moi j'ai j'ai toujours défendu cetti de la là la famille euh, euh, la direction de la de la euh, mm-hmm. de la compagnie sucrière am na nu ñu war a taxawaat mais li ma mënta comprendre mooy eh, nga eh, société boo xamante ne bii fii ci Sénégal ci ak Afrique mm. di employé plus de huit mille juróom-ñetti junniy nit société boobu da nga war a xool ni ngay doxale ak moom war nga fexe ba lu koy gàllankoor nga éviter ko te boo gisee li xew nag travailleurs yi dañu ànd ak direction ba man semaine dernier rek la eh, week dernier maa nga fa woon ak ñoom vraiment ma gis ñu tiit ma gis ñu bëgg ñu jàppale leen ci li nga xamante ne lii moo leen di yoot parce que suukar soosu bu tasaaroo ci dëkk bi reste ci marché yi mais ñoom seen suukar dootul jar te ko booba ba lay indi moo tax ma ne nañu xoolaat mbir moomu war a toog nag ak compagnie sucrière direction bi toog ak travailleurs yi wax ak ñoom xool li mën a nekk ak li mënta nekk mm-hmm. waaw euh, ak difficulté yu liggéeykatu Sénégal yëpp di am mais dañu sentirul benn yoon léegi euh, syndicalistes yi Euh, ndaxte syndicaliste comme ni ñu ko waxee léegi ñoo war a défendre intérêt matériel ak moraux yi au contraire sax léegi tey euh, travailleur bu si am problème dangay dem seeti Guy Marius Sagna wala nga seeti activiste yu mel ni Y'en a marre loolu est-ce que du perte de vitesse ci syndicaliste yi ngeen def euh, loolu dafa indi ay réflexion yu war a tax nu xool nanuy taxawaat syndicaliste yëpp xoolaat seen bopp ndax bu ñu demee boo travailleurs yi di di daw di làqatu ci ginnaawu ay comme ni nga ko waxee mm-hmm. je n'ai rien les activistes ñu ngi góor góorlu mais dama yaakaar ne fa ñu war a jëkk a dem bu fekkee ñooñu taxaw nañu mooy ci seen euh, ci syndicaliste la ñu war a awale mais nag bu fekkente ne bi syndicaliste aussi qu'on le veuille ou non ñi ci ëpp léegi ñi ñu wax ne ñoo ñoo ñoo am doole dañuy def en vérité participation responsable version beige mais bu boobaa aussi du ñu mën a def. lu am ay seen xaalis am ay seen di xaalis. voilà hmm. voilà comme ni ko ndem ci yàlla si <laughs> Iba Ndiaye Diagne doon waxe hmm. kon dafay nekk mbir yoo xamante ni yu doy waar la kon nag man du ma jaa du dul ma bett hmm. eh, eh, ñiy syndiqué di gën di wàññeeku dul ma bettit ñi nga xam ne ñoo travailleurs yi ñu gën di dem ci activité di leen joyti seen seen soxla mais li ma gis daal mooy war na taxaw taxawaat liggéeykat yi. parce que bu ñu gisul nag seen bopp ci li ñuy def dañu nu fi bàyyi dem seeti ñeneen mm. te loola bu boobaa mouvement syndical euh, la ñu la la ñu nasaxal même bu nu bokkute central syndicale même bu nu bokkut ay syndicat de base itam war na am benn solidarité bu nekk suñu diggante boo xamante ne bi war nañu ci mën di sukkandiku pour maanaam li nga xam ne moom la liggéeykat yi jooy que muy nekk ca port ba que mu nekk aéroport que mu nekk compagnie sucrière que mu nekk feneen ci milieu enseignant nu war a mën a taxaw nag eh, nekk benn pour defendre seen intérêt sunu intérêt yooyu ngay wax léegi. waaw est-ce que beneen problème de fond bi mooy du euh, nekkul ni syndicats yi dañoo bëri <laughs> pratiquement dans chaque coin de rue gis nga fa benn siège su syndicat est-ce que loolu tamit bokkul ci problème bi. waaw xam nga syndicats yi dañu bëri am na ci loo xamante ne lii mooy eh, benn raison la. Mm-hmm. benn explication mais lu ñu bari bari itam xam nga ni fi mu ne nii syndicat jàngalekat yi ak lu ñu bari bari itam ñaari bloc la mm-hmm. ñaari bloc la euh, sama mbokk yi tudd G7 ak G20 ak g mm-hmm. donc xam nga foofa même bu ñu bari itam ñu ngi fas ni seen kàddu di nekk benn mais dafa doyul dañu war a gën a avancer war nañu mën a dem boo syndicat yi nga xamante nii parce que syndicat bu gis dafa am ligne ñi bokk ligne war a mën a nekk ci benn syndicat ou bien ñu euh, benn benn centrale syndicale donc te loolu moom la euh, euh, OIT ah moom la moom la digle mais nag dafa am lu mu sas ñi nga xam ne dañu wax ne ñoo ëpp ay ay militants ci secteurs yi maanaam organiser nañu ay élections. de représentativité mais loolu waroon na régler problème bi non. loolu loolu malheureusement loolu dafa gën a indi problème ci biir liggéeykat yi ci biir syndicats yi et cetera moo tax ma ne ñi nga xamante ne ñii am nañu benn hauteur de vue bi que au niveau des centrales comme au niveau des syndicats d'enseignants et de tous les syndicats war ñuy xool naka la ñu mën di jàppalantee pour que ñu mën a nekk benn pour éviter xëccoo beeg ŋaayoo boo xamante ne bii. réglé lul dara travailleurs yi nga xamante ni ñoom ñu nga fa ñu nekk di sonn bu nekkee ca port ba bu nekkee aéroport bu nekkee feneen ak feneen kon war nañu xool li nga xamante ne li mooy li faj eh, feebar boobu. en tout cas man gis naa au niveau de la compagnie sucrière y a huit centrales syndicales barki démb laa fa jóge yu yu yu fa taxaw mais man travailleurs yi ni ñuy defee également seen unité d'action à la base euh, euh, suma camarade bi Ousmane Sarr. Euh, wan na ma ci lu bari euh, que ce soit également au niveau du port SATS euh, dama gis ne même bu nu bokk bu ñu bokk li central mais ñu ngay góorgóorlu di jéem a ànd nu leen di appuyer en tout cas barki démb rek lañu nekk en négociation avec les les dockers au niveau du port Abdou Mbaye ak ak ñoom Ahmed donc bu ñu bokkul fu ñu fu ñuy fanaan itam war nañu bokk di waxtaan pour xool lan la liggéeykat yi moom la ñu bëgg lan mooy saafara seen seen seen seen i problème pour ñu war ci mën a taxaw loolu daal mooy li nga xamante ne lii parce que bu ñu ko deful mais eh, dañuy dem seeti ñeneen te eh, gis naa ne eh, li ñu tuddee dispersion boobu mm-hmm. war na mën a ñàkk fi mu ne nii parce que oh, bu fekkee OIT dafa wax ne fexe leen a nekk dan ñi nga xam ne ñoo ne ci bopp yi war nañu fexe ni toog di waxtaan. bu demee ba syndicaliste yi ñi ko jiite en tout cas dem di bokk ci ay institution ak avantage yi mu àndal yépp euh, kooku est-ce que dina war a mën a valablement di défendre kat euh, xam nga loolu beneen problème problème la. non euh, problème bu rëy la parce que au lieu nuy reyante pour défendre les travailleurs contre ñi nga xamante ni dañu leen di bëgg nasaxal mais plutôt da nga gis ne organisation syndicale yi. Euh, euh, ñenn ca bopp ya dañuy xeex pour occuper des post de responsable dans les dans les gestions fàtte li leen taxu li leen li leen taxu na jóg fàtte li leen war a tax a jóg ñu ne ci ni ci wetu liggéeykat yi loolu moom lañu ñu constaté fii mu ne nii ci Sénégal e malheureusement euh, dafay daal di tax nañu waroon taxawee ci mbiru liggéeykat yi dootuñu ko mën parce que nag dañu leen di ngalaat quelque part mooy li nga xamante ni moo xew actuellement c'est très dangereux rafetul sax ñu di ko wax mais daf ci am ñoo xamante ni utiliser wu syndicat yi lu dul seen poche. la mooy mooy li nga xam ne moom la ñu constaté. waaw loolu waaw dara lu ñu mooy le nombre de travailleurs syndiqués. day wàññeeku day gën a wàññeeku day wàññeeku. Mm-hmm. ñi nga xam ne même euh, c'est des travailleurs euh, de très bonne volonté dañuy dem toog seen kër. kon nekk na loo xam ne day nasaxal façon boobu ñuy liggéey day nasaxal n'est-ce pas baatu liggéeykat baatu syndicat. ci biir Sénégal et c'est très dangereux le premier instrument de défense des intérêts matériels de Moro lu li ci jëkk pour travailleur bi mu se son organisation syndicale et sa formation léegi li nga xamante ne lii vraiment war nañu ci dellusiwaat xool naka lañ ciy doxal ñu ñëw ci yow domaine bi ngay yëngu le plus mooy euh, wàllum euh, jàng bi euh, démb si conseil des ministres président nee na gouvernement bi nañu continuer di dialoguer ak syndicalistes yi ngir at bi di nekk benn atu boo xam ne c'est apaisé naka nga gisee sorti président boobu waa xam nga président Macky Sall président de la l'APR moom day xëy xëy rek wax benn mbir mais ndax mu ngi koy toppatoo ndax loolu dina dem ba demander des comptes maanaam mm-hmm. ne diw ak diw yéen yéen a yore njàngale mi ñëw leen wax ma lan ngeen def ak ñoom dem ci woo syndicaliste mu def def ak ñoom noonu parce que boo ko seet la wax rek la mm-hmm. ay waxi neen nekk na yoo xamante ni dialogue dialogue dialogue euh, comme disait l'autre ah dialogue bu dul indi dara mm-hmm. chaque jour yëf fi gën a metti sunu dossiers yi jàngalekat yi puisque ci ñooñu ñooñu nga wax ñu ngay nekk ay ay ay montagnes au niveau de la fonction publique lan la ci def lan la ci wax noo ngi amee euh, benn document bu ñu tuddee benn étude bu ñu tuddee système de rémunération euh, au niveau des agents de la fonction publique jàngaleet posé woon problème boobu ba ñu defal ko étude beeg yëpp mais dafa jël étude bi moom ci boppam moom ci boppam wax na ko ñaari yoon sama kanam da ko jël dugal ko ci tiroiram ndax pour moom loolu daal xal xalaatul ah ñuy niveler par le haut on va niveler par le ah, bas. état bi commandé étude fay si ay million nan la la ko mën a dugalee si dans les tiroirs mais kenn mosul gis mel noonu. Hmm. gis nga euh, euh, madame la ministre de la fonction publique. Hmm. Euh, Mariama Sarr. déedéet du kooku ka ka ka mu remplacé. Hmm. te mu nekk ambassadeur je crois au Canada. madame Bampassi. madame Bampassi. ci sama kanam Viviane Bampassi. madame Viviane Bampassi sama kanam. la ko président bi waxee wax yoo xamante ni keroog ñun dañu waaru te c'est une bon volonté mu ngi doon liggéey liggéeyam correctement mais moom dama mel ni président dafa mel ni ci ni ma ko gisee bëggul kuy liggéey liggéey bu jub. li nga wax ah. li nga wax grave na de. mais c'est très grave boo xoolee boo xoolee gouvernement ba le passé ñamu ca génne woon mooy ñan ay maritaw ñaan ay euh, euh, euh, Pape Abdoulaye Seck. ak ñi demee noonu nga xam ne ñun ñi nga xameen bokkuñu ci gouvernement bi dañu gisoon ne noo ngi rafetlu la ñuy def mais dañ la xëy rek dàq leen pour lan mu dàq leen kenn xamul même gis nga euh, bi passé ni mm-hmm. même situation moo tax dañu demande président finalement lan la bëgg ndax kuy liggéey la bëgg au profit des sénégalais bien koo xam ne dafay war a nekk ci wetam rek di ko xalamal comme ni ma gisee ñenn yi di ko def léegi Eh, gis naa benn kilifa gu mag jóg di ko tàccu booy fecc ah. ah. waaw coalition Mburoog Sow lañ nekk. Ah, man de wax de loolu daf may jaax moo tax ma ne lan la bëgg ak fan la bëgg a jëmale Sénégalais. parce que bu fekkente ne bii dafay def noonu pour nasaxal nit ñi nasaxal presque bi nasaxal euh, agent euh, de nu mu tudd euh, politique yi politiciens yi ak yi demee noonu pour un trois une troisième candidature mu ngi nax boppam. Hmm. parce loola la di Guinée. du Sénégal la di Côte d'Ivoire du Sénégal te man gis naa ne moom fi mu ne nii foofu rek la taxaw lépp acte bu mu posé rek. Hmm. def lay won ne mu ngi eh, fexe. ca troisième mandat ba la jëm. ca troisième mandat ba la jëm. war nga gis. Euh, man loolu laa loolu laa gis moo tax ma wax ne opposition société civile ak tous les citoyens war nañu booloo nekk benn pour ne ko loolu mënu fi amee mais nun gis nañu ne acte bu mu posé rek. foofu la awale waaw dina ñëw léegi ci question politique yi mais nañ jeexalee ak euh, école bi. waaw fi mu nekk 4 millions d' élèves. ñoom mooy xëy école chaque jour. ak 97 000 enseignants. surtout ci contexte Covid bi nga xam ni Covid bi dafa gën a euh, takkarnaase waat. am ay voix yu élevé wu ne essay sax est ce que waruñu tëjaat école yi ba feebar bi gën a wàññeekul yow lu siy sa position. à l' état actuel des choses man d' accord pour ñu tëj école bi. Mm-hmm. am na benn protocole sanitaire. Eh, bu ñu euh, ministère génne bu mu génne woon am ca ay engagement yu mu jëloon ci ni ñu war a taxawee ci école yi élèves yi ni ñu war a ñëwee professeurs yi enseignants yi ni ñu war a ñëwee ni ñu war a taxawee loolee bu ñu ko respecté yaakaar naa ne dana mën a wàññeeku bu baax dans le milieu scolaire dans le milieu enseignant mais nag li ma gis mooy euh, gis nga masque yi ñuy wax mais élèves yi man gisuma élèves yi di ko di ko takk de. Hmm. rarement gis naa ci dem naa ci benn école sax benn professeur mu ne ma xanaa xamoo xele yi li ñuy def ku ñëw ak sa masque ba ñu la bàyyi nga jàll da ngay dem ca fenêtre ba jox ko sa moroom. pour mu jaaree fa ba delluwaat ci duggee ci bunt bi. Hmm. gis nga donc loolu c'est très grave. c'est très grave feebar bi gën a. c'est très grave law. moo tax war nañu mën a taxawaat euh, enseignants parents d'élèves et gouvernement. ñu taxawaat ci mbir mi parce que milieu scolaire nag si c'est infesté c'est extrement grave moo tax ma ne ñun li nu li nga xam ne moom la ñu souhaité bu ñu tëj école yi mais nag am na fa bu fa yeggee loolu mënta ñàkk loolu mënta ñàkk moo tax ci situation bi ñu toll war na nañu gën a góorgóorlu protocole sanitaire bi ñu waxoon nañu ko respecté et veiller à l'application rigoureuse des mesures des mesures euh, barrières. beneen coow li am ci école bi mooy euh, différent bi am ci euh, diggante euh, parents d'élèves yi ak école privée yi ci ñetti weer yi nga xam ne dañ ko bëgg fayloo élèves yi te fekk jànguñu ko woon ndaxte période boobu ñu ngi nekkoon ci crise sanitaire ba école yëpp tëj lan moo ci sa position gouvernement bi moom nee na nañ dem tribunal ñu régler seen problème bi foofu. xam nga dafa am loo xamante ne nii man bu ma déggee Macky Sall dina waxee ak gouvernement am daf may jaaxal. problème am na poroblème boobu yow mi nga bi ñu ne yow yaay chef d'état président de la république mais également président de la paix yaa ko wara a saafara nga leen di dàq doo comme ni ñu waxee doo à dos mm-hmm. c'est c'est inadmissible na woo jàngalekat yi fi fa woo déclarant responsable yi woo parent d'élève bi mm-hmm. ñu toog ñu ne problème posé na parce que nag lii kenn mosu ko woon xalaat mais naka la ñuy def xool na école yi xam na ni ñu toll école bu ci am na personnel am na personnel war na mën a fexe bo ci lii nga xam ne mooy ces mille milliards ay quelques mu war leen ci jox loo xamante ni école bi dina mën di continuer fonctionner parce que dañu bokk ci da ngaa xeeb trois milliards yi ñu leen jox ah trois milliards da nga kaa xeeb c'est très peu hmm. par rapport à leur mission très peu par rapport gis nga li ma lay wax ni c'est très grave mais di nga gis école privée yu fermé dootuñu ubbi. parce que situation am na ñu commencé sax dàq ay ay jàngalekat. ah mais qu'est-ce qu'ils vont hmm. faire am nañ 300 jàngalekat ñu dàq euh, déjà. man am na benn groupe bu bu bu bu ñëw suma kër di ma di ma expliquer. Hmm. mais parce que bu fekkente ne bii nag école bi maîtres yi professeurs yi mais bu weer dee du ñu leen fay. mais dafa dafa nekk loo xam ne dafa metti c'est des familles donc Macky Sall dafa war a gën a góorgóorlu taxawu ñooñu parce que c'est un secteur extrêmement important dans les performance de notre système éducatif waru leen bàyyi noonu rek naa dem leen ngeen dem leen tribunal loolu jekkul rafetu mhm. alors ci wàllu politique nag euh, yow comme ni ma ko rappelé tout à l'heure euh, euh, bokkoon nga ci commité directeur bu parti démocratique sénégalais jamono ji nag débat bi mooy retrouvailles famille libérale déjà sax commencé na am benn groupe bu commencé di reconstituer wu auto du président de la république yow bokkoon nga si ñi ko doon théoriser depuis ay ay at a ngi nii est-ce que ba léegi sujet boobu mu ngi la à cœur wala da nga see da nga see non mënuma ci génn ndax nag dama ko bokk ak samay nawle hmm. eh, ñeen ñi mën naa leen wax rapidement seen tur Cheikh Tidiane Touré eh, Mamadou Moustapha Dieng eh, maître Cory Sène Assane Ba ñooñu dañu ci waxtaanoon boo tëng ci ay këyit dem ci responsable bu ne jox ko ko parce que li nu gis mooy famille libérale dañoo tas te dañu waxoon ne en son temps c'était en deux à partir de 2012 mënuñu continuer ay libéraux di gouverner ay libéraux di opposer parce que champ politique bi en vérité loolu moo fi am actuellement kenn ku ne war na mën a seet ka mu ka ka mu jegeñeel idéologiquement mu jéem a dem ànd ak moom mais parce que nun li ñuy def moo tax nu créer ce qu'on a euh, li nu tudde woon nu taxawal ni kuréel gi nu tudde woon convergence et perspective libérale dara dox tax ko woon a jóg lu dul fas yéene mun ñi nekk noonu nous réclamons de du libéralisme social de maître Abdoulaye Wade nu war di fexe di defar suñu diggante di bañ a nekk fii di ŋaayoo ko xeexoo euh, mais malheureusement nous n'avons pas été suivis. parce que ba nu taxawalee loolu. li ngay théoriser nii est-ce que du transhumance bu ñu bëgg rafetal rek. xam nga hmm? xam nga bu njëkkoon euh, ba nu ko créé dañu doon wax naa woy ñoom dañu bëgg a dem ci Macky Sall dañ nangam nangam. Hmm? man leen man xam nga bu may dem ci Macky Sall ak bu ma ci dem. je n'ai pas besoin de ça pour dem ci Macky Sall man question jom ak deretu gor juy daw sama yaram moo tax man mënuma dem ci Macky Sall hmm. parce que nag dañu nekkoon ci ay jafe-jafe dañ nekkoon ci ay jafe-jafe ñuy jàpp ñii di tëj jàpp ñii di exiler ak ak yu demee noonu di bun xataal président de la république maître Abdoulaye Wade ki nga xam ne c'est notre mentor boo bu ma fa bokkeek bu ma fa bokkatul mais loolu mënuma ko seetaan dama war a def face ak ñi ma ci mën a àndal pour que loolu wàññeeku bu jeexul itam. ñu gor boobu mi ngi des ba léegi ci politique Sénégal fii. Euh, euh, malheureusement. sa mm. euh, devin de plus en plus rare. Mm. parce que am na kilifa yu ma gis ñuy tàccul Macky Sall tey di fecc. Mm. tey man wax dëgg si yàlla kon ma waxoon loolu dinaa ko di mais xam nga lépp looy dugg te amul moral amul éthique. Edouard Pierre Edouard. man loolu soppuma ko. nit ki dafay am dignité xam lu muy bëgg ak lu mu bëggul gis nga tey Macky Sall bu fekkonte dafa juboo woon ak Ablaye Wade xam nga coono yëpp du du du duñu ci fekk parce que maître Ablaye yéene woon na ko lu ne ñun ñii on était prêt à l'accompagner en son temps mais nag mënuloo ña àndal ñu leen di tëj kaso yow ngay wëlbatikuwaat naa da ngay dem fekk da nga koy da nga dem fekk man am na si ay mbokk yu ko jege moom ñëw nañ ci man deux fois di ma wax euh, président Macky Sall nee na nangam nangam xaw ma moo ko wax xaw ma waxu mais man je sama ngor ak sama jom ak ni ñu ma éduqué tax na mënuma bàyyi ñee ñuy bul xataal ma leen fanaa ñukk naa damay dem jaari feneen am nañu ko man def nañu ko que kenn ku ne nag na assumer ay responsabilités. léegi waaw léegi retrouvailles famille libérale boobu est-ce que dafa war a nekk autour du président de la république bi nga xam ni moom moo levier pouvoir bi wala boog dafa war a nekk autour du président Ablaye Wade bi nga xam ne mooy chantre libéralisme social fii ci Afrique. gis nga gis nga ñoom ñaar ñooñu nga wax mm-hmm. kenn mënu leen cee génne mm-hmm. Ablaye Wade yàlla dafa dogal moom moo fi saxal libéralisme social mm-hmm. au Sénégal et en Afrique nekkoon vice-président. Euh, de l'international libéral. booy boycotté woon congrès international libéral. Sénégal waaw parce que nañu ko doxale nañu ko doxalee. Mhm. man euh, boobu nekkuma nekkatuma woon PDS. Euh, ci commité directeur nekkatuma woon PDS parce que maa ngi demoon ànd ak ma Madické mais dama d'accord ci position boobu mu jël booy boycotté la rencontre de dakaar mhm. parce que nag nit ki doo ko yaakaar bu pare yàpp ko fii bu ñu fi wax libéralisme ak loo mën wax foo mën dugg. balaa nga ne nii di nga tudd Ablaye Wade boo ko bëggee mettre en parenthèse ñeneen dañu ko tudd parce que nag moom li mu fi def sur ce plan là keneen defu ko fi te keneen dootu ko fi def moo tax ñun dañu wax ne Macky Sall euh, euh, Maître Ablaye Wade euh, Idrissa Seck Pape Diop Jean-Paul Diaz Ousmane Ngom Maître Madické ñoo ñëpp war nañu moo ànd taxaw xool ne dañoo war a saxal libéralisme social au Sénégal te ñoom ñooñu kenn mun leen cee génne parce que loolu la ci waay mën a wax itam ak ñeneen ak ñeneen ñun yàgg nañu koy théoriser mais taxul nun nu dem ci ci ci Macky Sall di di ko woy ji dañu wax ne su qu'on appelle des des des dafa am te ku yaakaar ne idéologie dafa dee booba fekk na. Ah, loolu lool la ñuy wax de danañ. ñu wax idéologie ba amatu fi boo xoolee lépp lu motiver nit ki li muy def ak li muy wax. c'est que dafa adossé ci benn ci benn donc loolu mooy li nga xamante ni man bëgg naa daal euh, ñu fàtte tuuti euh, xuloo bi ŋaayoo bi te xool où se trouve l'intérêt des Sénégalais parce que ànd boo xamante ne bii aussi Sénégalais yi ñooy payer le prix boobu boobu ànd man d'accorduma ci mën nañu ànd pour defar Sénégal bu boobaa bu ñu wootee ñëpp war a mën a ñëw fekk si nu ci loolu mais ànd boo xamante ni bii da nga ànd ànd ak poche euh, ba mel ni xamu mburoog mburoog euh, hmm. soow hmm. am na yoo xamante ni man rus naa koo wax rus naa koo def te woowuma ci kenn mais retrouvailles famille libérale ban ban intérêt lay amal sénégalais yi lan la mën a changer si vie wu sénégalais yi mais clarifier les jeux politiques d'abord hmm. xoolal fi mu ne nii c'est c'est c'est des c'est des libéraux di défendre la la même chose que ceux qui s'opposent kooku amul cohérence. di gouverner ak des socialistes. Euh, d'autant hmm. plus que Macky Sall est entouré de communistes de trotskistes ak ak ñi ñi demee noonu. Macky Sall le libéral investi à la maison du parti socialiste. mais c'est comme candidat en 2019 comme candidat mais dama la wax ne. Senghor <laughs> fi mu tëdd xam naa war na fa war na bouger. non non moom kay wax dëgg si yàlla kenn mënu la ko wax moo tax ma ne il faut que nu kenn ku ne am courage yow fa nga wax ne foofu nga bokk nga défendre ko ànd ci ak ña nga ko mën a àndal fii dafa am idéologie libérale. libéralisme social boo xamante maître Abdoulaye Wade moo ko moo moo moo ko fi saxal am nañu gëm socialisme am ñu gëm communisme mais kenn ku ci ne na dem ci courant ba gis naa sax nag gis naa sax nag communistes yi ak socialistes yi di góorgóorlu ne dañuy regrouper réveiller leur international et cetera nangam nangam mais je dis encore une fois man li ma gis mooy mënuñu en tant que libéraux ñii di gouverner ñii di opposé wu di xeex ba bëccëg maanaam kooku ça ne fait que le jeu nest pas des trotskistes et également de des socialistes seen jeu rek la ñuy def day seet fu ñu mooy mooy mooy rek jàpp jàpp fa hmm. di le bopp yi loolu mooy li nga xamante ne ni eh, bëgguma tudd turam mais am na ku jege président boo xamante ni actuellement euh, maître euh, kay dëggal euh, Macky hmm. am na benn benn waay bu ko jege ak ñeneen ñoo xaman nekk wuñu fi lu dul loolu. Mahmoud Saleh la ki ngay waxal. déet tudduma tur <laughs> waaw pour débat bi leer rek. waaw tudduma tur <laughs> mais gis naa ne mais gis naa ne. ñoom nekk wuñu fi lu dul loolu. moo tax ma ne li li amal njëriñ Sénégal mooy nañu clarifier d' abord n' est ce pas le jeu politique. nañu xool ñi mën a ànd ñu ànd ñi nga xamante on n'exclut pas aussi dem ay euh, foo xamante ni da nga mën a ànd ak ñeneen ñoo xam du du ngeen même idéologie hmm. mais d' abord. La base, c'est des regroupements autour d'une idéologie. Ici, c'est le libéralisme social de Maître Abdoulaye Wade. Voilà. Merci beaucoup. jërëjëf euh, Ibra Diouf euh, Niokho Ba ñu ngi lay gërëm bu baax euh, ci li nga wuy si sunu invitation syndicaliste nga bokkoon ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais nekkoon fi député nekkoon aussi plénipotentiaire maître Madické Niang ñu ngi lay gërëm bu baax waaw alxam sant yàlla voilà bien vraiment di la remercier yow itam mhm. di waa kër gi di la wax daal kontaan voilà merci mbokk yi fi la ñu yem ak yéen euh, ci euh, invité euh, mi journée ñu ngi leen di gërëm ñun yéen ñi ñuy doon suivre te di leen jox rendez vous suba ak jàmm jërë ngeen jëf.